sànni ay kaddu tuuti ci ki nga xam ne moo di kenn ci sang yu jigéen yi war a nekk itam xudwatun li nisa ina maanaa di royukaay ci sunu soxnay jamono yi kooku moo di maam jaara busu xam ngeen ne ci jamono yi ñuy dund jamono ju jafe la ci jigéen ju jafe ci góor waaye ju jafe ci jigéen ci digganteem ak diineem digganteem ak yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne jigéen daal taishu faraxan fi kulli shay day dund noonu di dem rek waaye li ëpp daanaka dafay widd noonu ci wàllu diine lu baree bari firaaxan fil xudwa itam nga xam ne royukaay jafe na ko ba jamonoy baax royukaay da daan am ñuy xool ci ñoom di roy ci ñoom jikko yu rafet di roy ci ñoom diine waaye bu fekkee jamono dafa dem ba nga xam ne ji du man taqtadi biha fi axlaaqiha wa diiniha yow mi jigéen gisatoo ko tibbe ci moom ay jikkoom yu rafet gisatoo ko tibbe ci moom diineem ah kay duñu ne jeex na sax amut waaye ni jamono di doxe ak ni jigéen tasaaroo léegi néewaana mu am ci bërëb yu baree baree bari ña doon baax sax nag gaa ba léegi fu ndax daan taa rek tepp tepp am fa waaye dafa bëreetu loolu moo tax ñuy wax bu fekkee jigéen amatul fu muy tibbe diine amatul fu muy tibbe jikko yu rafet amul ku koy fàttali yàlla waxtu wu nekk mu di ci suuxat ak ruuxam amut ku koy jàngal alxuraan wala muy jàng alxuraan di ci suuxat ak ruuxam nga xam ne waxtoom yépp ci diggante liggéeyam ak soxlay këram rek la ko nekkee ak soxlay marché ba mbaa feneen néewug jëf yu baax yi yooyu yépp daje ci moom ak nis jamono yi doxel waxtu wu ne len di xew nga gis sa bopp ca la nga xam ne mooy xew loolu day doon na jafe-jafe yu rëy ci wàllu jigéen fi mu nekk nii xanaa yàlla baaxe la rek xiir la ci diine nga jëm caa mos la nga am walla la nga mën a tibb waaye ku yorub téeréem ne day jàng wala kuy faral di toog di xalaat yàlla di déglu alquran di dem ci ñu baax ñi di ci jëlé yar ba nga xamné ne lañ daan am ci biir néegu sey lolu jafé na légui bu ñëkkon yalla defoon na barké bu ré ci biir néegu sey lu ko waral moy nit da daan am kilifa muy goor muy jigen ki nga xamné ne la bu tollo ci denc soxna day déglu ay way juram ba ñu yebal ko fi béréb tànn ko mu tànn ca ka nga xam ne jàpp na ne mooy war a doon soxnaam waaye lépp tege ci kaw ndigal bu jëfee ndigal rek barke daal di jóg taxaw ki nga xam ne mooy jigéen ji itam yem ci ay loxo ba ñu tànnal ko boroom kër su dëppoo ka war a doon boroom këram barke daal di taxaw loolu bokk na ci li daan may aw askan barke bokk na ci li daan maye barke ci biir néegu sëy kon dégg ndigal lu am solo la alxuraan daf ñuy nettali bu baax jigéen ñi nga xam ne ñooy jigéen ñu baax ñi amoon diine te xam ngeen ne góor gune itam jigéen mooy way juram sonn ci moom lool kon jigéen ay jur ku baax kon jigéen jooje itam war nañoo gis ca moom loolu moo tax kon ñuy fàttaliku kenn ci ki nga xamante ne bi moo di jigéen ñoo ñooñu nga xam ne dañoo yaru ci lislaam nàmp diine ci seeni way jur nàmp alxuraan ak gàttu tànk ak wéy ci ndigal loolu yépp nga xam ne moom lañu xam moom lañu dund jural leen barke yu baree baree baree bare bu ñu xalaatee ci jamono bii nga xam ne royukaay wu baax wu ñuy fàttaliku ndaxam bu ñu tuddee jigéen ñu baax ñooñu itam nga gis ne rek dafa jaar ci nopp yi jàll waaye royukaay wu baax woo xam ne danga ci xame di ci jànge di ci selle di ci yaroo bu jigéen demee ba amul loolu amu ko ci biir këram fekku ko ca biir daayira ba nga xam ne moom lay dund fekku ko ca jàkka ja nga xam ne moom lay frekante di jànkoonteeg nu mu ko neexe rek bu ñëwee julli ay rakkam wala mu ñëw ci jataayu mbooloo ma ba ñu far ko def xaj na jataayu tasewukaay rek jataayu nuyoog saafonte walla jataayu jaay ak jënd nga xam ne yow dangay ngay wéy rek ci réere sa diine réere attey diine loolu lépp nag ànd ak wutum alal mi nga xam ne du jeex benn yoon Iblisa ki soldaaram jug taxaw ñoom itam fas yéene temm ci yàqal jigéen ji xamal ko ne ko col gu rafet nii lay mel col gu jekk nangam ak nangam lay mel bàyyi loola lenn ci saw yaram ci biti yàq jikko yi kersa dootul am ba nit ki mën a am diine lislaam koy lislaam mooy ñu fexe ba génne ay muslimaat yoo xam ne ay royukaay lañuy ak wàllu ñàkk xam lu may lu lu baax loolu kon moo tax ñu ne sayidatu nisaa'il aalamin sangub jigéen sangu ñoo war a doon royukaayu jigéen ñu sunu jamono ji te royukaay boobu mel ne lu baree bari rek dañ koy wax waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu xamal ne jigéen war naa góorgóorlu bu baax jigéen góor sax góor it war naa góorgóorlu bu baax waaye jigéen warna gor gor lu bu baax yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wax ne uriitu naara fa raaytu akthara ahliha min an nisa yonent bi alayhi salatu wassalam ne na dajma won sawara ma fekk li ci upp lépp di ay jigen da lol la ko waral moy nee na di doyedal sen néegub sëy di sank ak yàlla ji subhanahu wa taala lolou bokkoon na ci ñi nga xam ne da leena yobale won ba tax na yooyu yëpp ñu nekkoonte di toggoo ay bàkkaar loolu bokkoon na ci li tax mu gis sawara fees dell ak jigéen kon ñu war a bàyyi xel loolu bu baax xam ne jigéen wërta gaaral boppam ci yenn jataay yi waaye wërta doyadal boppam itam dafa war a nekk muminatan xaashiatan jullit bu ragal yàlla comme ni ñu koy sàkkoo ci góor mu xam ne moom it ca loola la war a dox du ne rek nun jigéen ñi nangam wala nun ay jigéen rek lan waaye dafa war a xam ne itam lu am solo la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne na ngeen xool ci Fatima mi nga xam ne mooy doomam daal di wax ne Fatimatu sayidatu nisaai ahli aljanna Fatima mooy sangub jigéeni wa aljanna muy doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la muy baax baax ak lab yonent di lab yonent di baayam nekk baayam lépp taxutoon mu gis loola waaye dafa gis ne rek jigéen la comme jigéen ñi wërta damoo mukk na yonent bi sallallahu alayhi wa mooy sama baay waaye dafa déggal boroom këram topp ca moom la ko lislaam sant mu di ko def di ko di def liggéeyu këram loolu noonu la gis woon boppam xam ne loolu lañu sant jigéen motax jigen ci bir lolou yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ne jigen jigéen ñi na ngeen lu bu baax ndax lu néew rek maanaam tànk tak yu néew rek bu ngeen ko defee seen aljana daal di taxaw ida sallat mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha daxalat aljanna bi idni rabbiha yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ajjanaam mel na ne jëfewut ndax bu dee julli julli yi juróom ay julleem ay faratam bu weeru koor ñëwee mu woor di wattu boppam ba du mooy yàlla di topp boroom këram daal di dugg ajjana fi kon loolu yor naa bàyyi xel ci jigéen ñi waxtu nekk nag ñu di ko dégg ci nopp waaye mu mel na itam jaar ca jamono ju bees da ko ñaawal ba muy nuru ak njaam wala leneen waaye doonu ko la baaxoon ba tey mooy baax la bonoon di bon moo tax fatimatu mi nga xam ne mooy doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisutoon li nga xam ne moo di yonent googi way juróom baayam nekk ab yonent muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi nee na fatimatu bidaatun minni fa man axdabaha faqad axdabani yonent bi alayhi salatu wassalam neena Fatima sa mooy sama doom aw dog ci man képp ku ko merloo rek merloo nga ma kon kooku moo di Fatima waaye loolu lépp taxutoon mu gis lool ne da danga nekk jaamu bu yàlla bu jigéen fas yéene sa lépp di dellu ci yàlla kon loolu moo tax ci jamono ji nit dafay fàtte lu baree bari li ñuy tudde al al alxayaatul maddiya ak xayaatul tayiba mu nekk dund bu sell ak dund ci nag matériel ak liy xew ci jamono waaye dund gi nga xam ne mooy dund dëgg-dëgg du rekk alal la waaye mooy dund goo xamante ni bi nag tënku ci diine la ndax xam ngeen ne adduniya ma marrun laa ma adduna saxuñu fi dañuy dem bàyyi ko fi ci lu mel ni lii nag danañ ci gis ne jigéen ju baax jooju nga xam ne kenn la woon ci saalihaat yi nekkoon kenn ci ki nga xam ne itam ku jàppale woon cheikhul xadim radiallahu anhu la ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la ko ay soxnaam gëme woon topp ko jàppale ko ci alal ak eh, dalal am xelam ak yooyu yëpp loolu yëpp nekkoon na ci ci moom kon moom mu nga xam ne kenn la woon ci misaal yi yi nga xam ne jamono du leen fàtte benn yoon waaye yàlla faye na ko barke boo xam ne barke bu yaatu la tey loolu it li muy tekki rek mooy ku dëggu yàlla fekk la ci nit bu doxee jëm ci dëgg rek yàllaa koy gàttandul boppam jéego bu mu jéggi yàlla nee na boo jëmsee ci man di dox ma jëm si ci yow di waaxu boo jëmsee ci man di waaxu ma jëm si ci yow di daw ca na nga xam ne noonu la ko defe moom yàlla subhaanahu wa taala mu nekkoon koo xam ne moom baam jaara li ñuy tudde jikkoy matale kóllëre alwafa amoon na ci moom muy fas yéene ànd ak ki ko yàlla booleel ci ni ko yàlla bëggee te séntu ca barke barke ndax doomu aadama yàgg naa séntu barke ci biir néegu sëy rawante na ab jullit waaye rawante na nun ci sunu askan nun kon jikko yu alwafa muy matale kollëre bi nga xam ne benn la ci jikko yi gën gën a tedd fa yàlla subhanahu wa taala nekkoon na ci moom te xam ngeen ne jikko yi alwafa umuy matale kóllëre yàlla daf ko dénk na wa awfu bi ahdillahi ida ahadtum te néegu say ndénkaan la ndéegu say matale kóllëre la néegu say ak dogu la jigéen daana wax ne bu ñu ma yóbboo fi kër diw dinaa fa am lu baax lu tax dogu dogu sëy ga nekk ca moom dogu jaar ca la yàlla bëgg ko borom këram bëgg tax na te nit ki bu gëmee yàlla dëgg-dëgg da koy wóor ne bu defee nangam yàlla fay ko motax jigen daana wax ne suñu ma yóbboo kër diw dana fa am lu baax dogu ci ta noné la ko ko yàlla defale lutax bam fa démé la yàlla bëgg képp la fay nekké ba yàlla dogal mu am fa lu baax motax yàlla ne wa awfu bi ahdi ahdillahi idha ahadtum na ngeen matale kóllëre képp ci képp ku ngeen fasale kóllëre wa man awfa bima ahada alayhi llah fa sa ajran aziman képp koo xam ne kenn ku ne la nga diggante woon ak yàlla matale nga ko day fasanu utihi ajran asiman yàlla dana la fay yool bu rëy boo xam ne doo xam fu mu jóge loolu nag mboolem jigéen ñu baax ñi ñu xam ñëpp dal na leen kon ñu la taggaloon ci baax te dëgg rek barkeem ba nëga ni mi ngi fi loolu moo tax yàlla du wor mukk yàlla moo tax yàlla ne lir rijaali nasibun mimma ktasabu wa lin nisaai nasibun mimma na góor baax na jigéen baax na luwaay waay fàggu loolu la yàlla di defal loolu moo tax cheikhul xadim radiallahu anhu daan sonn ci jigéen ñi ngir ñu nekk ay jullit yu sell ak njullit jullit yu nangoo muñ ñoom jigéen ñi nga xam nañ ne néegu sëy neexut waaye daana wax ne kenn ci ak njabootam alayki bi sabri wa taqwa ki maa ngi lay dénk na nga muñ te ragal sa boroom ñaari daraja yu am solo ngi noonu muy at taqwa ak as sabr muñ mooy ngànnaay li gën a foor ci ngànnaay yi ab jullit muñ mooy wéerukaay wi nga xam ne foo jàqe dem ci rekk yàlla dindil la njàqare la inna allaha maa sabirin taqwa muy ragal yàlla subhaanahu wa taala mooy tax nit ki du def mukk lu neexut yàlla ci biir néegub sëyam wala ci lu dut néegub sëyam itam moo tax mu ne ko alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaxfiri laki boo boolee ak sabru taqwa ci lu nëbboog lu feeñ yàlla jéggal say bàkkaar loolu moo tax sayidatuna mariama mii maam jaara tey taxawoon ci àq yàlla ji waaye taxaw ci àq itam kii nga xamante ne bii moo di borom këram loone la ko yàlla faye nag cheikhul xadim loolu moo tax bokk na ci woykatu wolofal ba di wax ne ku fonkoon julli la ku fonkoon jàpp doog a julli la ku fonkoon werd la ku fonkoon itam liggéeyu biir këram la ku fonkoon boroom këram la ba saawu jóge nemmiku ko moo tax mu ne mës la julli te jàppul mës la julli te wérdul door a xëy sangam tuubal daa di wër këram buubal kon loolu ay jikko la yoo xam ne moo doon euh, li muy def par bis nga xam ne moom lay def par bis moo tax itam ñu baax ñëpp wax nañ ci moom jikko yu rafet asilatun watanan sharifatun nasaban karimatun xosoban tafdiluha baana ku tedd ci tund wu mu jóge ñu xam ci diine waaye ku teddoonu askan la itam ku amoon ngor la ngëneel li yàlla joxoon lu leer naññ la waaye yëmut ca loolu itam nag ku xamoon digganteem ak boroomam la mu xam ne yàlla mooy moo yor lépp te moom lépp te moom lañu war a jaamu moo tax kon mutiatun rabbaha wa sayxu sayidaha ardatu afaaluha lillahi idmaana ku topp ku daan topp yàlla la waaye itam topp sangam ba te ngërëmam lu feeñ la lu leer naññ la looloo tax mu am ngërëm li nga xam ne moom la am kon li ñuy tuddee al wafaau bi xuquqi zawji lu nekkoon ci moom la muy matale aqi borom kër loola jural ko barke bu tol ne bi nga xam ne moom la ko jural kon bokk na ci kiimaani yàlla yi mu wax ne na ngeen xam ne néegub sëy lu jara fonk la Euh, lu jóge ci atte bu jóge ca yàlla la du atte bu doomu aadama di tëral ak a dindi di seet la ko ca neex ak la ko ca naqari waaye yàlla moo tëral sëy ca al ahkaamil kawniya nga xam ne moo ko dogal ci dogalam ba kenn mënu ci dara wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha yàlla nee na bokk na ci man samay kiimaan samay jëf ma bind doomu aadama bind leen ci bakkanu aadam def leen ñu di azwaajan ñu di woy dencante li taskunu ilayha kenn ku ne wut wéttal ca moroom ja loolu moom ca yàlla la jóge doomu aadama nag amu ci atte atte yu bees yeeg lañuy xewal ak lañuy xewel ñu xam ne képp ku di jullit defal nga def rek moo la war ak bàyyil nga bàyyi rawante na joo xam ne mi ngi jóge ci yàlla subhaanahu wa taala kon bokk na ci li nga xam ne mooy àq yi ñu war a matale moo di taatu zawji fil maaruf déggal sa boroom kër ci njëkk ak teraanga déggal sa boroom kër ci njëkk ak teraanga noonu ñu waxee déggal sa boroom kër ci njëkk ak yi noonu la déggal sa soxna ci njëkk ak teraanga di nekke déggal sa soxna ci la ngeen séq la ngeen war a séq ca lam aajowoo ca la ko war a jàppale moo tax yàlla subhaanahu wa di wax ne di tagg jigen ñu bax ñi nga xamne ñomit ay jullit deug lañ te dañoo wara nek ay jullit deug fa salihatu qanitatun hafizatun lil xaybi bima ma xafida allah jigéen ñu bax ñi nga xam ne ti yàlla lañ di wattu seen borom kër ci buñu genné ak seen alal ak lañu am lépp lolu moy li nga xamne yàlla moko samal sàmmal boppam yonent bi alayhi salatu wassalam di wax ne soxna yi kenn ku ne na nga fexe ba defar sa jikko defar sa jëmm waaye defar sa diggante ak sa boroom defar sa diggante ak sa boroom kër itam yonent bi nee na xayru nisaa'i jigéen jigéen ci jigéen ñi man ida nadarta ilayha asarratka mooy ki nga xam ne boo ko xoolee am ci moom mbégte lu tax ma ngay góor góorlu di def la ko yàlla sant di góor góorlu di def loo xam ne la taxoon nga andi ko ci kër gi doo dem ba yokkat ci moom mukk walla nga ne sàppi na ma wa ida amartaha ataatka boo ko waxee ne ko nan def nangam mbaa tee ngaa def nangam mu def loola te du ci andi ay waxante yu bare yeneen ak yeneen wa ida amartaha ataatka soo ko digalee ca la yàlla gërëm ak lay defar seenub société biir néeg ak biir kër mu topp la ca loola te xam ne lu baax nga bëgg moom it lu baax rekk la bëgg wa ida xibta anha xafidatka fi nafsiha wa malik nee na su fekkee génn nga mu xam ne gor ca wax ja mu xam ne nitakum naw leen dafa war a sàmm boppam sàmm kàddoom sàmmal la lépp loo fi bàyyi ci kër gi ginnaaw yaa dem di wuti te loo am da ngay indi kon na la sàmmal li nga fi bàyyi ba boo ñëwee yewit sa xol sedd kon ci loolu nag la nit ki di wommatoo jëm ci ngërëmal yàlla subhaanahu wa moo tax la mu war a jiital muy topp yàlla cheikhul xadim radiallahu anhu dafa wax ne wala taruumi taat allahi bila taati zawjika taqiyi dil ula nee na yàlla moom mooy garab gi nga xam ne ñépp fa la ñuy wéeru waaye nag daa am lu mu la digal joxoñ la am la am ko mu la joxoñ muy sa borom kër ne la na nga fexe ba am ngërëmam bu fekkee defoo ndigal la loo defal yàlla yitam day xam ne danga wàcc ndigal lam la digaloon muy gëna boko topé nga top sa borom kër boko ko nga top sa borom kër defo sakko ngeureumal yalla ca ki la yalla jox ndigal ci mom ko su boba ngeureumal yalla dana la jafé motax mu wax ni itam na ngeen xamné wal ta'lami anna an niswati fi ta'ati al azwaji duna miryati nee jigen jihadam du dem gàddug di jaxaso ci bir gorña di jëlub radio di wax wala muy def yenen jihaati jigéen moo di topp borom këram sàmm këram sàmm ak njabootam jàngal ay doomam te yar leen loolu mooy jihaati jigéen wal taalami anna jihaada niswati fi taati al azwaaji duuna miryati na ngeen xam ne kon loolu moo di nit ki taxaw ci mbirum këram taxaw ci mbirum li nga xam ne mooy jihaad ci moom kenn digalu ko mu jóg dem ca woote ba wala mu jóg dem ca yeneen yi nga xam ne ca xat-xatloo ba ca buuxante ba yendu fa bàyyi njabootam bàyyi boroom këram ak yeneen ak yeneen loolu bokkut lañu la digal jigéen kon mu xam ne toog ci këram sàmm ak njabootam topp yàlla topp boroom këram loolu mooy li nga xam ne mooy li ko war moom jigéen ji kon ku matale woon kóllëre la waaye ku matale woon kóllëre ci digganteem yitam la nag ak ay dëkkandoom ñi xam dara ci histoire am muy maam jaara xam nañ ne jàng nañ ne ku fonkoon ay dëkkandoom lañ rawante ne néew ji doole yi rawante na xale yi te xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fala yusi jaara bariyaa na tey kuy tuddoo maam jaara te bàyyi bàyyiwoo xel ci loolu faw na nga bàyyi xel ci la ngay tuddoo ci moom ci ay jikko yu rafet yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku gëm yàlla gëm bis pénc bu lor mukk sa dëkkandoo lan mooy lor sa dëkkandoo lor sa dëkkandoo ci ay wax ci jëw ko lor say dëkkandoo ci teg ci moom baat yu ñaaw lor sa dëkkandoo ci wax téléphone ak kub jàmbur ci loo xam ne loo xam ci moom la nangam lay def nangam la dul def loolu bokkul ci li nga xam ne moo di jàppale sa dëkkandoo moo tax yàlla subhaanahu wa di wax ne na ngeen fonk dëkkandoo lu mu tuddee aqi boppam ji tudd aqi wayjur tudd wàqi aqi jegeñaale aqi dëkkandoo la wax ne na ngeen ko fonk yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxaw na tàllal ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min saxaaba yi ne ah aka neexoon tey moom lu mu bëgg a wax nii mu ne laa yuminu ja laa yuminu laa yuminu jaaruhu bawaa'iq koo xamante ne bii say dëkkandoo wóoluwuñ say sa saw lor maanaam benn loo gis waxal leen ko bu ñu doon def dara sax dañuy nëbbu ndax xam nañ ne boo ca sëba tegee da ko wax ci mbedd mi mbaa ca bitti yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ko nit ki du gëm mukk amul kenn ku gëmam di mat koo xam ne sa dëkkandoo wóoluwut sa sa lor ci moom wala say wax ci moom kon jullit bu war a bàyyi xel loolu bu baax rawante na bu jigéen ji bokkoon ci ay jikkoom moo di rafetal jëm ci dëkkandoo ak dimbale leen jàppale leen ci wet yu nekk ci kenn ku nekk sa sa aajo moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñu ko laajee ne ko maa xaqul jaar na an mooy aqi dëkkandoo daf ne in istaqradaka aqradtahu bu la lebee nga lebal ko boo ko mënee boo amee loo ko lebal wa in istaanaka aantahu bu sàkkoo ci yow ndimbal nga dimbale ko wa in ixtaaja aataytahu bu fekkente ne dafa am yitte itam nga jàppale ko ca wa in marida uttahu bu fekkee dafa feebar nga dem seetiku bu faatoo nga gunge ji ba bañ ko jëbbal borom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yuminu man baata shabaana wa jaaruhu jaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na koo xam ne defar nga sa kër ba saw ñam dara màngiwu ci nga reer ba suur tëdd te am sa dëkkandoo joo xamante ne bii réerut mbaa bu reere it suurut seetaatal sa ngëm yàlla bu baax sa ngëm yàlla des na kon loolu bokk na ci li nga xam ne mooy dëkkandoo ku amoon ak farlu ci jàngal xale waaye itam ci jëfe li nga xam ne moo di ak jaamu yàlla moo tax yàlla ne inna fi dalika la dikra liman kaana lahu qalbun aw alqa samaa wa huwa shahid ku am xel tey bàyyi xel nit ku baax ku ñuy waxtaane danga ci fàttalikoo danga ci nooyal sab xol danga ubbi say nopp te déglu lana amal njariñ nga defar nga jaar ca loole kon loolu la roy di jariñ moo tax boo xoolee ci alquran dafa fees dell ki li yoo xam ne nettali nit ñu baax ñi la ngir ñu rey ci moom muy ci jigéen ñi ci yonante yi ci ñi nga xam ne dañoo liggéey ci woote yàlla yi ba tuddaale ñi nga xam ne ñoo doon kàccoor yi sax ngir ñu moytu leen kon loolu moo tax ñuy waxtaane nit maam sayidatu jaara moomule waykat ba nee na walam tuhin ahadan walam tushin abadan walam tubin ahadan man aabaha maana ku amoon respect la ci amoon respect ci nit ñi mësta doyadal kenn mësta ñaawal kenn mësta wuññi sekkares kenn waaye mënta mësta waxal kenn itam lu nekkut loolu bokkoon na ci ay jikkoom bokkoon na ci ay jikkoom itam képp ku masaa ñëw tawat ko dara wala mu gis loo aajo te mu man laa dimbale ca loola mu dimbale la ca loola moo tax woykat ba waxoon ne man xaawalu xaajatan fii milkiha wajado نجح الحوائج laa yalqawna xidmaana nee na képp ku ma sa am aajo ci lépp loo xam ne alalam la boo ñëwee fekk ci ak jàppandal goo xam ne sa aajo dana ca fajoo bu dee ci ñi nga xam ne itam ñooy ndongoy daara yi ku fonkoon jox leen aw ñam la woon daanañu wax ne in zaaraha jaa'icun aw zaaraha dhami'un saara bi ma indaha shab'aana rayaana ku ma saa ñëw soxlaloo xewloo mbaa ndox moo naan mu jox la ca la fa nekk ci aw ñam ak ndox nga naan te dem kon bariyaana koo xam ne ñëw nga di sàkku ndimbal ci moom fekk ndimbal loolee ci moom loolu kon bokk na ci li nga xam ne ay njariñal moom ak jikko yu baree bari moo tax Seyxul Xadim radiyallahu anhu di ko fàttaliku ci ñaan di ko fàttaliku ci ñaan ci woy ma ngay wax ne wa najjini wa jamia al muslimina maan ونجي والدتي آمين يا الله يلا ما نجي لي نيان nga musal ma ci mbugal ak sawara musal ci julit ñépp musal ci sama wajur yow yàlla mi nangu ñaan yàlla nga nangu ñaan yoy la waghfir lana walaha wastur ma'a macaa'ibana waltuf bina wa biha fi lhawli yàllaahu yàlla ma ngi lay ñaan nga jéggal nu te jéggal ko te sutural nu sutural ko itam te ñoo ngi lay ñaan nga ñeewante ci moom ci bis ba nga xam ne ci la ñépp di tiit nag muy bisu tiit boobule yal na nga jéggal suñu wayjur woowule waaye itam yal na nga ko musal ci lépp luy lore anha tajawuz wa iyaa xarxaman na fama lana siwaaka wa anta albarru yallaahu yow yàlla yow mi nga xam ne yaa jéggale yal na nga ko jéggal te jéggal nu yow yàlla yow mi yërma yërëme yal na nga ko yërëm te yërëm nu فكد أمنو كنكم أيو يلا سبحانه وتعالى فما لنا سواك وأنت البر يالله في برزخ مع قبر كلنا لنا وزرا ومن كروب وخوف نجي الله يو يلا برزخ غنغ خمنا فلا نيب تد تاي دي خار بسوب أتبا بأميال بغا خمنا خطاي باغ لندم و يلا دون سنو ويرواي yàlla na nga nu musal ci mboolem njàqare yeeg lañ fay tiit lépp ci bàmmeel yàlla bu ñu ko gis ak soxna soosu nga xam ne moo liggéey liggéey bu rëy boobu ci lislaam laa tax taxtabirha bi ma sat bi qaadiratin wala tuxayib rajaha fiika yallaahu yow yàlla yàlla boo ko nattu mukk ci say nattu yi nga xam ne nattu yu metti la nattu yu doy kiimaan la ndax kat doomu aadama attanut say nattu rawanti na moom mi nga xam ne ci jigéen ñi la bokk لا تغتبرها بما ليست بقادرة سب يو يالا كن أتنكو كن غير يرماني غير تشفيل تي ويجرك دوم ولا تخيب رجاها فيك يا الله يالا بو تسيا كارم بن يونتي أدناك الآخرة لمدون لغي يكسونال برم كرم بو يالا بو تسيا كار جوجة كون وأسقنا معها من ماء كوثر من اخترته من جميع الخلق يا الله yal na nga nu màndal ci sa ndox moomee nga xam ne mooy ndoxum kawsara ba ku ca naan dootoo mar ba mukk te yaa ko tànnal xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na nga nu màndal ci ndox moomale ak mboolem nag ñi nga xam ne ñoo di jullit kon modela a ngi noonu ci jaamu yàlla modela a ngi noonu ci baax ku ñu war a ngi noonu ci baax moo tax ñi ñaa sayxul xadim di ñaan ne booy maye daal booy ñaan daal ñaanal yàlla nag ak njub ak baax waaye ñaanal la ci soxna su baax itam wa zawjatan salihatan tuinu ala tuqa wal birri ya muinu yow yàlla maa ngi li ñaan te julit buy ñaan war ko ñaanale zawjatun saaliha muy soxna su baax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na bu la yàlla mayee soxna su baax niki noonu bu la ba yàlla mayee borom kër bu baax dimbale na la ci sa xaaju diine kon na nga góorgóorlu la ca des moo tax mu ne wa zawjatan saalihatan tuinu ala tuqaa ba nga mën a amug ragal yàlla mën a fegu sam xel man a dal nga liggéeyal sa njaboot liggéeyal sa diine rafet njortu ci sa njaboot tam def lu baax ci sa njaboot kuy ñaan itam nee na na nga ñaanaalekat mu doon koo xam ne dana mën a sedd sa xol ba du la sàppi walla ngay def leneen loo xam ne ñàkk a mën a yem ca moom a tax wal tajcalanha daata xayrin wa jamaal وذات يمن وذكاء وكمال نانكي يو جولي بي نيان داغا نيان سخنا سو ييوي نيان سخنا سو خامني اب تارام دانا لا دوي سك وليس غي خول كنين نيان كو خامني بروم باركي لاي دون بروم خل مو مات لا بالو بوج مو خام كو لوم ورا ديف خام كو لولو بوك نا جي لي ماتا نيان تي اب جوليت واي كوم خلام ماتوت خامود لاكو لاكو وار خامود لام ورا ديف خامود لام ورا ويخ xamul na mu war a def ba bégal la moo xam jëkk ba ku góor ki la wala ku jigéen ki kooku dana indi ay jafe-jafe ci biir néegu sëy moo tax mu ne wal tajcalanha zaata xayrin wa jamaal nit koo xam ne itam kat ñëpp am wërsëg sax waaye yal na yàlla dëppoog muy ku boroomu yiw ku bari aw yiw ku bari jàmm ku bari mbégte waaye wa zaata yumnin wa zakain wa kamal loolu lépp yal na ko yàlla def mu dellu waxaat ni itam sooy wutit nag na nga ñaan yàlla mu defal la boroom jikko yu rafet wa daata axlaaqin xasinatin wa daat ibadatin xaalisatin ilal wafaat ñaanal yàlla booy wut soxla soxna mu am dëppale laa koo xam ne boroom jikko yu rafet la jikko yu rafet ci la lépp xaj jikko yu rafet moom la ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yërmande muhammadan لاخراج الناس من الظلمات الى النور ونشر الرحمه والتعاون والحياه الكريمه للانسانيه في ربوع الارض ينتبي الله داف يوني سي جيكو رافت يوني كو يتم يرمان جو سك سي مبولم متساري جيكو رافت سي مبولم فان دي ادنا بيس موم سبحانه وتعالى كون مو يوني محمد موتاخ ينتبي عليه الصلاه والسلام دون واخني انما بعثت li utam utammima saalihal axlaaq beneen riwaaya ba di wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq kon sëriñ bi nee na booy ñaan nga ñaan koo xam ne borom jikku yu rafet la wa zaata ibadatin ak koo xam ne ab jaamukatu yàlla la waaye soxna soo xam ne wala borom koo xam borom kër boo xam ne xamut luy julli tegut fenn julli bu ko neexee julli bu ko neexee du julli xamut laab gu mat sëkk doo ko gis mu yiwee mukk ci genn anamu digganteem ak boroomam du suturlu ci jëmmam ak yaramam loolu bokk ak li nga xam ne moom la war a ñaan moo tax mu ne wa daata axlaaqin xasinatin wa daat ibadatin xaalisatin ilal wafaat kuy jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ilal wafaati ba ba ñuy ànd génn àdduna ñu ñaar ñëpp kon loolu lu jara ñaan la ci biir néegu sëy amaana kuy denc soxna te fàttee ñaan sax far ñaan soxna su baax gu am qualité yi nga xam ne moom la ñu wax day xool rek côté taar ba wala waxtaanan ba juboo rek waaye bokk na ci li nit ki war a ñaan te ñaan xam ngeen ne lu am solo la ci diine nit ki ñaan yàlla dëppale la ak ku noonu ci ay jikko xataa sax bu fekkee am nga ko ba noppi ngay wéy di ko ñaan ngir yàlla wëlbati jikkoy kooki ba def ko ci jikko yi yu rafet yooyu muy wax moo tax itam mu dellu waxaat ne wal tajcalanha junnatan na dunub جميعها والغفلات يا مجيب سخنا سينك كوي تك سخنا يتم ورغانيان مو دفل لكو سخنا سو خمنتني بي دنگا مانا فغو چموم بدوتو خول لن للي اندي لي باكار بو لغي كو مانا فغو چموم اك لب لوي نرو كي رج رج يو يالا مانجلي نيان كومل نونو والتجعلنها سبب السعادة بجاه من ساد جميع الساده soxna si képp kuy denc soxna itam war ngaa ñaan mu nekk sa sababu saada sa sababu saada mooy sam xel dal na nekkoo ci gargar yu baree bari xuloog jàppante guddeeg bëccëg te it gis nga ne la nga koy jox ma nga koy doyloo ba nga mën a fàggu loo xam ne dana mën a saxal sab dund ak la nga war a jëfandikoo ci wàllu dund loolu bokk na ci li nga xam ne kuy ñaan war nga koo ñaan kon li ab jullit war jariñoo gannaaw ragal yàlla subhaanahu wa moo di assawjatu saaliha in amartaha in amaraha ataathu wa in nazara ilayha sarrathu boo ko digalee mu def te waxtu wu ne mbégtee dox seen diggante ci yéen ñaar ñëpp kenn ku ñëw dugg ci kër gi wala nga bokkub jataay doo gis mukk jeexiti naqarlu wala jeexiti lenn ci kanamu ka ca des loolu mooy wa in nazarta ilayha asarratka boo xoolee ci moom am mbégte loolu it war a bàyyi xel ne texeg àdduna ak goog àllaaxira bokk na ca loolu muy am soxna su baax kon nit ki war naa bàyyi xel bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee woon na min saadati ibni aadama al mar'atu saaliha nee na bokk na ci texeg jullit bi mu am soxna su baax wal maskanu saalix ak dëkkukaay bu yiw boo xam ne danga fa mën a terlu danga fa mën a sutarlu ba kenn du la xamal dara danga fa mën a teral gan yitam ba am ca tuyaaba wal markabu saalix ak warukaay woo xamante ne bii foo amee tey ju yàlla gërëb nga mën koo daal di doxi fa saasa loolu bokk na ci li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku am rek bokk na ci li ñuy mën a am ci àdduna nag lañ cay mën a bànneexoo kon bu ñu xoolee danañu gis nañ euh, maam jaara kenn la woon ci nit ñooñu nga xam ne ñu amoon gëm yàlla lañu waaye ñu amoon itam ak dégg ndigal lañu ñu nekkoon ak ñu sell la itam ci seen wàllu diine ci seen wàll yëpp kon ñu xam ne lool yi nga xam ne moo di néegub sëy dañu war koo sos ci jikko yu rafet ak gëm yàlla ak ragal yàlla noonu itam la bayti maanaam kër gi war a nekkee kër goo xam ne këru gëm yàlla lay doon këru njub lay doon yow mi góor gi itam jox soxna si lekk ak naan di ko xottali yére lu mu bëgg nga wutal ko ko téléphone bu rafet ak yeneen ak yeneen dëgg la yépp yooyu baax na waaye ñu xam ne biir kër gi ab société la société boo xam ne kat li koy mën a dëgëral ak sart yañ cee teg lépp weesu wut ay jikko yu rafet ak sóobuwaayu rafet jikko yu rafet mooy li nga xam ne mooy taxawal boobu boobule di société kër googule kon loolu nit ki kii samp kër wala ki ne ci biir këram ba noppi war ko bàyyi xel xam ne xiyamul usra li nga xam ne mooy téye ab famille ak njaboot ci biir kër mooy ñu jëmbat ca nag diine balaa dara xew jëmbët ca diine loolu moo tax nga gis gone yu ndaw yoo xam ne tàmmuñu julli xamuñu luy julli fekk na dañoo gisul mu ñor seeni wayjur na mu leen war a ñure mën naa am bu ñuy julli sax bu jur yi julli gone yi ñu xam ne jur yi julli nañ ba ñu xam ne lii lu war la lu ñu war a roy la lu ñu war a def la kon nit ki war naa bàyyi xel na nga xam ne noonu lay taxawale boppam ci biir këram ngir yar ca ak njabootam kon loolu mooy li nga xam ne tënk nañ ko foofu ci nii nga xam ne soxna su baax soosu noonu lañ ko xame woon ci histoire ba it gis nag barke bi nga xam ne moom la ko yàlla subhaanahu wa taala defal ak mboolem jigéen ñu baax ñi nga xam ne nag noonu lañ doon yëngoo ci wet gëleen yàlla féetale ba yàlla defal leen barke yal na yàlla dolli leen ay leer yal na yàlla dolli leen yërmande waaye yal na yàlla def itam lépp lu ñu doon yaakaar ci seenub liggéey yàlla ful ko te yokkal ko ñu fi nekk ba nga xam ne danañ ci mën a jaare am ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala mbokki jullit yi kon ñu xam ne yonent bi alayhi wasalaam yàlla moo ko yónni ci mboolem nit ñi waaye itam bi mu ñëwee itam li mu njëkk a def ci nit ñi muy fexe ba li ñuy tudde solidarité ak bennoo ak jàppalante ak dimbalante mu jëmbat ko ci seeni xol jamono ngi dox ba mel ne jàppalante bi doonte moyen yi bari na ci anam yépp yépp yépp nag mu mel ne jàppalante jafe na dimbalante bu sax jafe na taxawal loo xam ne lu wér la lool bu ëllëgee bu dara ne këtt ne jonn ginnaaw àdduna moom day tëdd ka jóg melut nenn léeg-léeg soxla am soo xam ne jullit ñépp la yitteel wala sa xeetu réew wépp la yitteel kon ndax taxaw ci lool yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon loolu lu jot la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ahabu al ibaadi ila allahi taala anfaauhum li iyaalihi nee na jaam bi yàlla gën a sopp ci kaw suuf mooy ki ëpp njariñ di jariñ doomu aadama yi ki ëpp njariñ ci nit loolu mooy lan fexe ba taxawal ay mbooloo ki association wala fu ñuy def alal foo xam ne bu ëllëgee bu ni aw nit soxlaa te léeg-léeg mbooloo ñooy soxlaandoo ni jamono di doxe ci wàllu yàqu-yàquy ndox di ko doxe ci wàllu yàqu-yàquy yëngutuy suuf bâtiment yu daanu ak leneen ak leneen léeg-léeg dara ne jonn mbooloom nit ñu war ne a jàppale ci ndox mu bari mu yàq ay kër yàq yeneen ak yeneen loolu jullit ñi war naa fekk ñu taxawal dara loo xam ne bu dara yëngoo ñu mën caa daal def la nga xam ne mooy la leen war fa saasa kon loolu bokk na ci li yonent bi jàngale woon muy li ñuy tuddee attakaafulu wal ixaasatu muy jàppalante solidarité ak dimbalante ci bu dara xewee nga nekk secours mboolem ñi nga xam ne ñoom la xew ci ñoom noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam meloon meloon ko ci saxaaba yi itam saxaaba yi it mel noonu ba kenn ku nekk yàlla di la tàgg ñii mu tàgg leen ci alxuraan bokk na ci kenn koo xamante ne bii ci kenn ku ràññiku woon ci yonent bi la ba yàlla ne fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanu yassiruhu lil yusra ku jël alalam jëpp abubakarin siddiq joxe ko ngir yàlla te dëgg rek ak de yëkkati lislaam ak jàppale ko fasanu yassiruhu lil yusra waaye wa amma man baxila wastaxna wa kadaba bil xusna fasanu yassiruhu lil usra bu fekkee kenn ku ne dane daal alali golo ca lex ba téye la nga yor yàlla nee na su boobaa itam ma seetaan leen rek ñuy xeek gont seenu fiddu dal loo am xeeb ko dootala jaamu yàlla dootala dimbale kenn loolu lépp nag dal leen muy alkande joo xamante ne bii وما يغني عنه ماله إذا تردى تألا الجوجو كد ألق لينغن كلين باي كوفي ألا الجدو تلجرين دارا الكند لكي نخدفو تولوون لباخ وإن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يالا نينا دوندك ديرك مو في نكنك بوي دوندو ورا دف لباخ بو دي ريتشلو دي فتون كون جوليت بورا باي خلو لباخ دانا نيو سيد لباخ تي جيجين نيغا خامن موم لنجدون وخ لغي kii nga xam ne mooy Khadija taxawaay bi nga xam ne nekkoon na ko digganteem ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi nga xamante ne bi woote ba metti na waaye mu jël alalam akum xelam lépp ànde ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ko yonante bi alayhi salaatu wa tagge nee na Khadija mi nga xam ne ca dëgg-dëgg kenn jiituwu ko ci jàppalante te yàlla tax kenn jiituwu ko ci deflante lu baax nee na qad aamanat bii id kafara nee mooy ki ma gëmoon bi ma nit ñi weddee moom xadija wa saddaqat nii id kadabani naasu nee na mooy ki ma dëggaloon bi nit ñi bi ñëpp weddee ne day ab dof la wala ab jabar la mbaa leneen la ba nit ña ñàkkee gëm moom moo gëmoon ba nit ña day weddee ka wax lu dul dëgg moom moo ko dëggaloon wa waasat nii bi maaliha id xaramani naas nee na alalam léppam lewoon na ci man luñ ci bëgg a def ci taxawal diine ak yëkkati diine alalam jooju dafa mel ne moo ko moomoon keroog ba nga xam ne nit ñi nee nañ nañ ko embargo bu ñu jënd ci moom bu ñu jaay ci moom loolu xadija moo taxawoon jël alalam di ko def ci yoon yàlla kon jigéenam ngi noonu wa razaqani llahu waladaha id xaramani awlaada nisa nee na kat mu su ko ñàkk gërëm ndax ci moom la ma yàlla maye ak njaboot ci moom xadija la ma yàlla maye ak njaboot kon moom mu su ko ñàkk gërëm gis nga jigéen foofu ci jëlbeenug lislaam loolu lépp bokk ci nag li ñuy tuddee jàppalante waaye bennoo nekk benn bokk solidarité lii ñuy tuddee di ko joxa muy association wala daayire wala lu mu mën di doon dara jiituwu ca fàgguteef ak jàppalante te yàlla rekk tax subhaanahu wa taala mbokki li ñu xam ne yërmande mooy laltaayu lislaam yërmande mooy li nga xam ne moo tax ñu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ci yërmande googu ngay mën a taxawe lool loo xam ne ñépp dañu ciy bokk jàpp bu dara ne këtt ne jonn wala fu ñu war a jànge mbaa fu ñu war a fajoo nit ñu mën caa taxaw ndax loolu mooy diggante jullit a moroom ja yërmande lu am solo la moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónni wu ma la lu may nga nekk yërmande yërmande ban xeetu yërmande yërmande ci rëddal leen ay yoon yoo xam ne bu ñu ci amee bu ñu ci jaaree lépp dana leen yomb danañ am organisation bu baax ba lenn lu ne luñ ca war a def def ko ca ña nga xam ne ñoo war a faju di faju ña war a jàng di jàng ña yàlla xañ kàttanuk fàggu ñu am fu ñu leen féete ba loolu taxoon ñu sàkk baytumaalil muslimin muy alali néegu jullit bi di jël di ca def ku soxla ñu faj la ku am bëgg am bëgg a jàng ñu jàngal la loolu moo di organisation bi lislaam te mooy organisation bi baax moo tax yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na man laa yar xam laa xam kudul yërëme kenn du la yërëm bu ëllëgé yàlla du la yërëm bu ëllëgé dee leen yërëm jaam ñi te it yërmaande jooju yëmaliwu ko sax ci ab julit waaye képp kuy doomi aadama na ngeen ko ëmbal yërmaande yërmaande ja nag du ay gorewu ko rek wala xool ko dar sa gémmiñ déedéet yërëm ko mooy fexe ba bu nekkee ci xat-xat wala mu am aajo yi nga xam ne aajo ju doomu aadama mënta ñàkk la nga taxaw ca loola loolu mooy man laa yarxam laa yurxam mu dellu waxaat ne irxamoo man fil ardi yarhamkum man fi sama dee leen yërëm ñi ci suuf ñi ngeen jamonoonteel ña ca kaw yërëm leen ña ca kaw ñooy ñan mooy yàllaa ki malaayikaam di ko dee leen yërëm jaami yàlla yi su ngeen ko defee yàlla yërëm leen yemut ca loola mu dellu waxaat ne innama yarhamu llahu min ibadihi ruhama yàlla kat kii muy yërëm mooy jaamam ñi nga xam ne boroom yërmande lañ innama yarhamu llahu min ibadihi ruhama ñi am yërmaande ci nit ñi kon taxawal leen ay kees sociale yoo xam ne lu mën a amal njariñ société ba ngay dund man koo amal itam askan wa nga jóge ndax ni ñu ko waxee àdduna day jóg ko tëdd bët mën naa set rek nga xëy dégg ne ndox ma yàq na nangami junniy kër am na nangami junniy nit yu amul fu ñu dëkk mën naa am feebar sàngam am na boobu nit ñaa ngay nangam nangam te loolu lépp dafa bokk ci dogali yàlla yi nga xam ne ab jullit daf ko war a nangu naf ko daf ko war a nangu nangu war koo sàmmwaale loolu kon bokk na ci lii nit ki war a def waaye bu jamono yàqoo ba yu bari di xew nit ñi di jëmale seeni xel ci li jëm ci wàllu média la muy wax ak la ca xew ak lañ cay sos ak la cay dëgg ak la ca du dëgg ba tax ne tëlatuñoo delloo seen bopp ci yërmande ak jàppalante ca yàlla tax lépp dellu ci ak mbañeel ak noonu lépp dellu ci xuloo kii am dëgg kii amul dëgg kii li mu wax nii la kee la mu wax du noonu يلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون نينا خول ني جامونو ادنا ياخونا تلو ياخو نك دوما ادما كو ياخ يالا ياخو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس نيت كو ياخ ньо ديم با اند باني وارون دوخالي سي سين بير لو خامني مولين دي انديل اي تيو كي وقتو نيك di andi ay fitna ci seeni pass pass diko andi ci seeni liggey diko andi ci lañuy gis ba taxna ku xëy xibar bu ñaaw ngay xol xibar bu ñaaw ngay déglu ba ne deg leen la di wax wala la journal sàngam génne wala la télé sàngam génne wala xolal internet bi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس waaye li yuziqahum baad alladi amilu laallahum yarjihun waxtu wu nekk na ngay gis lu naqari te doo ko mën a faj kon saa boo xamee na la wóor na yaa ngay suuxal sa àdduna ci ay caaxaani kese moo tax yàlla ne wa yahdi bihi ma man ittabaa ridwanahu subula salaam wa yuxrijuhum min adulumaati ila nnuuri bi idni wa yahdihim ila siraatin mustaqim képp ku bëgg a jaar ci yoon wa fàtteel wax yu ñaaw yi bu ci sax sam xel di dem te xam ne yàq ci àdduna moom ba àdduna sosoo ba tey ci la nekk kay wax lu bon ka yàq waxtu wu nekk ca loolu lay liggéey nit ñu baax ñi lañu amoon la leen ko mayoon du déglu du dox tànki ginnaaw du déglu ko yàq waaye dañoo dëgmal yàlla te fas yéene duñu wëññeku ba yàlla may leen li nga xam ne moom la ñu bëgg doomu aadama yàlla ko teral kon nit ki dafa war a teral doomu aadama wala xad karram naa bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa taflidan yàllaa bind doomu aadama ak xam-xam yëmu leen jox nu ñuy def ba jariñu nu ñuy def ba mucc loolu lépp yàlla defal leen ko jël ñenn ñi nag def leen ñuy sang ñi ca des abadan loolu mooy mooy xew niki noonu la ñu war a bàyyi xel ne mënuñoo dëppoo mukk ci bokk bëgg lu rafet mbaa bëgg lu baax faaw ay yàqkat a ngi ci biir faaw ñu dul ànd ak nit ñi ci ay xalaat a ngi ci biir walaw shaa rabbuka la jaala annaasa ummatan di ñaanal